xamee damay waliw kamal baat melaw na asalaamaaleykum ñu ñëwaat rek nuyoowaat ginnaaw bi nga xamante ni yéen a ngi doon ànd ak ñun ci li nga xamante ni moom moo xew ci gàmmu gi ni ñu leen ko waxee woon ci suba ak ngoon euh, léegi lañ jógee ci li nga xam ne mooy cérémonie officielle bi wax dëgg yàlla ñi taataan fa ay kàddu yi am solo yoo xamante ni kilifa ya fa nekk euh, génn nañ ko mu bokku nekk ci li nga xamante ni ndigalu sëriñ bi la. bokk na ci ki nga xamante ni moom mooy euh, naataqo rasmi Cheikh Abdourahmane Kunta ci kàddu yi nga xamante ni lancé na ko te mu bàyyi ci sëñ bi dañuy ñu ngi toog ak kenn ci nga xamante ni bokk na ci organisation bi nga xamante ni euh, moom moo lalu ci gàmmu gi yëpp muy Seydi Hamza Kunta mu war ñoo mën a talxiisal ci li nga xamante ni rek sëñ bi. lancé na ko te mu jëm ci li nga xamante ni moom mooy euh, njaboot gi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar. Ah, jërëjëf Cheikh Bounama ñu ngi lay fay nuyoo di la tatagal te di am contentement loolu wax dëgg yàlla ci bokk ak yow jotaay bi nga xam ni tey ci gàmmu Ndiassane la euh, ci chaîne bii nga xam ni mooy Ndiassane TV. Euh, jërëjëf ci nuyoo bu am solo boobu Seydi Hamza comme ni ñu la ko waxee rek. jóge nañ ci cérémonie bi wax dëgg yàlla ñu taataan fa ay euh, wax yi am solo bokk na ci li ñu capté ci li nga xamante ne xew na léegi muy phénomène phénomène boo xamante ne wax dëgg yàlla yaakaar nañ ni buñ ci jugul saafara ko rek yaakaar naa ni euh, lu bari dana gën a yàqu donte yàqu-yàqu am na ci li nga xamante ni euh, góor gi lancé na ko ci li nga xamante ni noonu la ñu war a mën a taxawee ñi nga xamante ñoom ñooy kilifa diine yi ak saytu gi nga xam ne war nañ ko mën a saytu seen i njaboot ani ban jàngat nga am ci waxam jooju noonu di wax rek ni serigne abdou rahman dafa bessalat la mamam cheikh bou mohammed Kunta redon bàyyi fi la mamam cheikh bou nama la mamam cheikh Sidil Muxtaar el Kunti redon bàyyi fi ndax dafa am ben wax kat bu ñuy wax mohammed Mahmoud mu ne Kunta yi ñoy ñi nga xamni bu ñu démé ba dëgg tumuranke ñooy ñoo xam ne dañuy taxaw wone wat lan mooy dëgg wat tam lan moy lumière ba nit ñi mën caa jaar ngir defaru te tay ni mu waxee tabarakallahu sëriñ Sidi Moxtaar itam waxee noonu génnul lu dul sallallahu alayhi wasallam nanu roy ci mom ci yoon ba mu awoon itam nanu ca aw laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana loolu la nu alquranul karim wax way bobu nga xamni moy model bu mag bi li sayduna muhammad alayhi salatu wassalam bayil ñu fi yoon wu leer nañ yoon wu leer non leen yoon wu leer woowu nak tey suñu mag ñii ci loolu la ñu nekk ndax tey kan moo mën a génnee ci yoon wu leer woowu mag ñu baax ñu ñu yàlla séddee ndax ba àll ba lëndëmee ñoom ñoo fi nekkoon di woote daawa bi ñuy wax tey la xew waaye démb ba mu lëndëmee ñoom ñoo fi nekkoon nga tàmbalee ko ci oqbatum na naafiyal yi wàcc ba ci siècle yu mujj yi ñoom mag ñooñu ñoom ñoo fi nekkoon waaye tey ba mu neexee nag woote yomb kenn ku ne nag bu la neexee woote ni da ngay def daawa mag ñi ca la ñu nekkoon ay nax saay la Cheikh Abdul Qadir Jeylaani daf noo jàngal ci sirrul asrar mu ne mag ñooñu nga xam ne ñoom ñooy dund tasawuf wala nit ñi nga xam ne ñoom ñoo ci tënku mooy ibadallah al muxlisina yi nga xam ni moom ñoo mucc ci pexem seytaane ba du leen mang di leen jëme ci yoonam mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci yoonu tasawuf tasawuf boobu noonu nag ñi taxaw nag ni dañ koy ŋàññi wala dañ koy tilimal ku ci bokkul rek yaa nga ca beneen yoon wa kon Cheikh Abdou Khadre Cheikh Abdourahmane loolu la doon fàttali ndax itam gàmmu occasion la boo xam ne nit ñi dañ ko war a saisir ngir di ci jàng la nga xam ni moom la ñu war a beesaleete sunuy gëm-gëm sunuy pas-pas ak gën a leeral sunu yoon te fa tabarakallahu ci loolu la beneen bi ci des te muy actualité mooy li nga xam ni moom la tuddee avortement médicalisé nga xam ne ñi ngi koy théoriser di ci def ay spot publicitaire di ko layaalee nag layin wu ne waaye la nga xam ni moom la ca génne fa tabarakallahu te mu bàyyi ko ci kàddu sëriñ bi te kilifa diine yëpp ci jamono yii ñu weesu wax na ci sëriñ si nag loolu dong lanu leen fi euh, loolu rek lañ fi taxawee bu dëgg taxawee nanu génn wax ko su njuumte amee nanu génn jubbanti nit ñi ci loolu rek fa tabarakallahu lanu ne kon cérémonie bi euh, bokk na ci cérémonie yu gën a jaar yoon fa tabarakallahu ci côté organisationnel ci côté message ndax message yu ama am solo la li am solo nag te mu bañ a war a doon pertement ci ñun mooy bu ñu ñëwee ci bis yu mel nii lanu fay déggee ci njariñ nanu fexe ba def ko muy sunu livre de chevet ñu aw ca def ko sunu yaan wu ñu mën a jaar ba déwén ak jàmm ak salaam wax dëgg yàlla alhamdulilahi rabbil alamin gàmm gu mucc ayib la ñu ñaan yàlla li ci des yàlla mottali ko ak jàmm waaye lii fi jata jaar fa tabaarakallaahu dal na xel ak sant la itam bu baax a baax macha allah. jërëjëf euh, Seydi Hamza jërëjëf euh, sëñ Abdourahmane Kounta jërëjëf Cheikh Mouhamed Kounta jërëjëf maam Bekay mbokk yi di leen leen indiloon ci li nga xamante ni moom moo ratoon ci li nga xam moom mooy cérémonie bi ak ki nga xamante ni bokk na ci organisation bi muy Seydi Hamza. macha allah ci njàngale mi am solo ba nga xamante ni Pape Abdourahmane lancé na ko te mu bàyyi ko ci ki nga xamante ni moom mooy xalif général de Xaadiriya di ñaan yàlla rek may ñu dégg ak top te ñu yàgg di fekkee li nga xamante ni moom mooy gàmmu Ndiassane taxawaay bi rafet na lool lool wax dëgg yàlla di kontaan bu baax a baax xam naa fi la ñu yem ak yéen ba ci kanam ak kanam incha allahu rabbi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu